Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, ye. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ mën ti door nga mën ko ñëk am bul fàtte cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am ba julli julli ak suba soko mané manee ci lu lay ci yalla ci jang alquran mu ci gën heure bobu sax jang ci alquran yool bu reey reey nga ci waxon na leen ko bañi nekk ci jangam alquran ma téméré ay yak yool bu reey ba ca ne nga nekk ci loola nekk ci loola la nga man ba bër set nga doora julli sa ñaari rakka yor yor boy xey door dem xey ku ko ko def kharaja min zunubi ka yawmin waladatu ummu la zanba la to ko wax mu ne ku ko def da nga set ci bakkar ba melni ni keroog bala sa yaay juddo ba nga ba nga juddo ci sa yaay xam nga lu rëy la bokk na ci kafara bakkar yi ñuy wax mooy foo julleetee ba rek farata Lo yakamti yakamti ñaari def ci ben nel astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñetti yoon ñetti yoon bu ngeen ko so pare wax ko ñett takusan timis ge suba astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñetti yoon gannaaw bo Julek farata guneng nga wax ko yalla jéggal say bàkkaar naka nonu bo juleeg juleeg farata ba pare nga tasab subhanallah walhamdulillah wallahu akbar lola nga wax ko mu nek téeméer bu manki ben nga mottalee ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir téeméer ba mat yalla jéggal sa yépp kon heure boo julleetee nga tasab tasab yoyati tamit day tax ñu jéggal sa kon nga xamne kon amna solo yooyu yëpp am na solo xadisab ku julli ba pare bala nga jugee ko fofa nga ne astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum yàlla jéggal say bakar lo imam tirmisi mo moo hadith ba ba taxna waxna ne man qala astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi thalatha maratin dubra kulli salatin ufira له وإن كان فر من min yonentu bi neena na képp koo xam ne gannaaw bi nga jullee ba pare julleeg farata wax nga astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñetti yoon sa bakkar yi nga xamone yeb yalla yàlla donte am nga bakkar bu lay ni ku dem xare xoole dem xare daw bokku na ci bakkar yi gëna mag and ak loolu lepp soo ko defee ñu jégal say bakkar baqiyatu salihat di tasab ta mooy way des way xiw yu des ya lu ama am solo la muslim moo wax ne دجي ننجلي ننجي أبي هريرة مني من صبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر abi hurayra nee na maa dégg ci yonantu mu ne ku julli julleeg farata ba pare tasab ne subhanallah fanweer ak ñett walhamdulillah fanweer yoon ak ñett wallahu akbar fanweer yoon ñett muy téeméer bu manqué benn nga mottalee benn ba ne allahu akbar laa ilaha illa allaahu waxdahu la sharika la lahul mulku lul hamdu wa ala kulli shay'in qadir mu ne sa bàkkaar yi bu tolloo ni peppi ndox géej gi bari naa bëri ba mel ni peppi ndoxu géej gi waxuma la géeju ndakaaru ga de géej yëpp bu ñu leen dagalee nga am pepp bàkkaar yu toll ni pepp ndox ma yëpp boo waxee lii gannaaw julli gu ne yàlla jéggal sa bàkkaar yëpp kon xam nga ni lii am na doole yàlla bëgg na ñëpp dem aljana ndax pare nañu ngir dem nag mooy po mooy wax ji naka noonu julleeg yoor-yoor gannaaw bi jant bi fenkee ba dox yëkkatiku nga julli ko lu xam-xam doole la day kafaara bàkkaar feek go to subar rek man nañ ko fa julli ñaari rakka mo ci gëna neew gëna gannaaw fatiha loo jàng la ci gëna bari moy fukki rakka ak ñaar di juroom benn selmal, su man ñaari rakka nak moy benn selmal su ñu ñaari rakka moy ñenti selmal su ko fukiraka buñ fukki rak manam juroom benn fukki rakka ak ñaar moy juroom benn selmal ndax ñaari rakka nga am selmal muy benn rek nga amal yenen ñaar selmal muy ñaar rek nga amal yenen ñaar selmal muy ñett rek mom kuko def donte le ñaari rakka dong nga def mu ben salman nga takko ko yalla jéggal la sa bàkkaar yépp mané gor gor na nga def ñent mu ñaari salmal wala nga def juróom ben mu ñetti salmal num gëna bëré gëna bax wax nañ ne timit ku ca jang bo fexé bu don ñaar rakka nga fexé ba ben rakka ba nga jang ci fatiha ayatul kursi yu fukki yoon benen rakka ba nga jang fatiha qul wallahu fukki yoon yonentu bi neena da nga am ngeurmande yalla te liñuy ñuy sakku yam nak moy ngeurmande yalla ko xass am yalla loy loy lo ñakati wa ridwanu minallahi akbar yermande ju tuti ngeurmande yalla ju tuti mo gën ludul mom kon sa julleek fay nangi yi fexel ba am lo ca xaj bo xamne rakka bo xamne ñaar rakka yo xamne ben ba fatiha ak fukki ayatul kursi ngaru ko sujud jugat fatiha qul wallahu fukku ku ko def takko ko da nga xam ngërmande yàlla yalla ta xamul lu xam na sonne bu baakha baakha baax a kan imaamu kën soo na gannaaw bi nga julle ak yor yor joxe na ca ñaan gu am solo mu ne ku ko man gannaaw bi nga julle ak yor yor ba pare ngay wax na yow yalla yalla nga tutil aduna ci samay beut magal sa mag gi ci sama xol bi yalla nga ma dëppaleeg sa ngërmande yalla nga ma ray ci sa diine ji ak top la so man na me ray mu ne lii ku ko wax tamit yool bu rëy rëy rëy ngay am allahuma saxiri dunya fi ayunina wa azim jalalaka fi qulubina wa wafiqna li mardatika wa amitna ala diinika wa taatika mu ne loolu yool bu rëy rëy imaamu Kansuus yi moo ko joxoon benn taalibeem moom tamit ñu ngi ko jëlee ci imaam ahmad ci xaddis yonantu bi lañ ko moom tamit mu jëlee ko ci imaam ahmad ibnu ko andi moom tamit mu jëlee ko ci xaddisu yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ngo bokk na ci kafara bakar bari lo julli ci yonentou bi julli ci yonentou bi mo gaaw ci kafara bakar day lak bakar comme ni safar di lakkee ñax na julle salatul fatihi so koy jang sa bakar day lak ko comme ni ñax ni ko safara di lakke motax lu way man ci gorlu na gorlu ci bari lu muy julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy fukkeeli kafaara bi ak juróom bokk na ci wax ji yonantu bi waxoon euh, benn waaye ñëw tawar ko ne ko damaa bëri bàkkaar de bay jooy yonantu bi ne ko waxal lii allahuma magfiratuka awsau min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali waaja wax ko benn mu ne ko waxaat ko mu ne ko ñaar mu waxaat ko ba mu ñett mu ne ko doy na sa bàkkaar yi yàlla jéggal na la ko motax ñaan gu cheikh na tidiane fonkon la ak suñu mag ni allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali lu mu gatt gatt nga jang ko ñett yoon suba gi lu mu gatt gatt nga jang ko ñett yoon ci ngon gi so mané def lu ko hepp nak mu gëna baxati lu baxa bax la gatt na lol, yombu na lol allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min hamali ku ko wax rek yalla jéggal sa bakkar yi Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.